parce que aussi ñëwuñu fi di fayanton mhm. euh, peut-être que régime passé bi ñoom benn instant c'était comment pour éliminer Pastef ils l'ont essayé peut-être yàlla moo leen ëpp doole mais ñun nekk ñu fi dëgg des comptes parce que loo xamante ñëpp ko bokk képp ku ci laale quand même mhm. war nga war nga delloo parce que li ñëpp bokk quand même kenn waru ko kenn du ko fowee mhm. donc képp koo xamante ni laale nga ci loo xamante ni du yoon je pense que yoon dina def liggéeyam du ñu def nag chasse aux sorciers on le mhm. mais quand même même ñun suñu biir képp koo xamante ni dénk nañ ay ndoom a tànk et ni ñu ko ni ñu ko ni ñu ko yoree jaaduwul le président ay di et son premier ministre duñu protéger kenn. Mhm. donc ñun exemple ci ñun lay commencer d'abord avant muy demee maintenant nag régime bi passé gis nañ ne rapport yi commencé na génn parce que ñoom ñoo si tegoon seen tànk ça fait cinq ans rapport génnul suñu leen maayaatoon troisième mandat avec leur candidat donc ça veut dire Sénégal ci boppam la ñuy jaay. mais mais mm-hmm. Dieu a fait que euh, ñun ñëw nañu au pouvoir donc ce qu'on peut faire c'est de corriger et may Sénégal wax sénégalais aussi jaruñu yàkkamti parce que beaucoup de pays se sont faits en trois décennies je peux donner l'exemple des Émirats du Dubaï. Mm -hmm. c'est en trente ans. la ñu la ñu la ñu la ñu nekk ci raay développement donc nañu teg dëkk bi ci raay développement ñaax nit ñi ci liggéey parce que mm-hmm. liggéey rek moom mooy moom mooy ah,